yëglekaay yi li ñu xëy alxames bi euh, Chérif Dia lañ ci àndal Chérif ñu tàmbali ak l'observateur l'observateur xëy ci président Macky Sall mu ngi nii kon di xaatim di bind Macky prend date jàpp na date moom Macky Sall gis nga ko ñëw rek ci choix ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars conseil constitutionnel moom vide juridique lànk na ni du fi am ba tax na kon président mujj na euh, ànd ci dogal bi conseil constitutionnel daal di jël liste candidat yi kon kenn du ko laal campagne électorale bi nag dees koy gàttal bu sukkandiku ci yenn kaay bi joom juróom-ñaari sages yi mën nañoo jooyante ñoom it euh, ñaar fanweeri fan ak benn daal di fekk si Macky Sall ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars bi Macky Sall Amadou Ba ak compte rendu conseil beeg séparation démb Sidiki Kaba lan mujj def mu nekk premier ministre yéen kaay ñëw na ci li xew ci àll assemblée nationale ak amnistie bi nga xamante kon yi daal mën nañ ko fàtte ci réew muy mbiram terrorisme ñi fi ñàkk seen bëkkan ñi yàq seen alal ñoom ñëpp daal jàpp na ni kon dafa mel ni dara musul xew fii ci Sénégal Aliou Cissé tey comité exécutif bu fédération sénégalaise football dina ko déglu. ñu dem ci enquête. Macky Sall ak PDS doo au mur dafa mel ni kon ñoom ñoo gën a ñàkk ci li nga xamante ni mooy dogal yi conseil constitutionnel daal di jël démb moom Macky Sall nee na nan voté ñaar fan ak ñeent ci weeru mars conseil constitutionnel moom fixé date bi. fanweeri fan ak benn ci weeru mars boobu conseil constitutionnel nag xëy na tey ñu daal di jooyantiwaat ñoom it ba fekk si mag sàll ci ñaar fukki ak ñeent ci weeru mars bi Elimane Kane moom gis nga ko mi ngi bëgg rek kon gars yi daal di réglé waat na mu gën a gaawee question boobu jëm kon ci wàllu daal di validation candidature Karim Wade PDS kon dina rek soldé ses comptes bu ñu sukkandiku ci yéen kaay bi El Malick Ndiaye Pastef moom nee na euh, seen noon yi gën a garaaw ci biir opposition bi la nekk loi bi démb passé na jëm kon ci amnistie bi. mu jàll ci le quotidien. les sept euh, sages bloquent Macky loolu la daal di wax daal di ñëw rek ci euh, rejet conclusion bu dialogue national fixé nañ date bi moom Macky Sall ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars Sidiki Kaba moo Amadou Ba ca primature. le soleil. démb nag àllarba euh, bu bëri woon ni euh, rebondissement la ndax décision conseil constitutionnel ak euh, datu élection yi changement premier ministre remaniement en perspective mercredi à rebondissement ba tax na kon datu élection yi yenn kaay bi nee na ñoom conseil constitutionnel daal dina ni rejeté li nga xamante ni waa dialogue national bi daal dina ko jàpp Macky Sall di dina choisir ñeent ñaar fukki fan ak ñeent ci weexu mars ngir tenue élection yooyu amnistie bi projet de loi bi daal dinay jàll ci assemblée nationale. libération lu mu xëyee. muy yëngu-yëngu yu am démb di remue ménage au sommet. buñ sukkandikoo ci yenn kaay bi muy décision conseil constitutionnel décret président Macky Sall ba ci vote loi amnistie bi démb nag conseil constitutionnel rejeté na daal di daq lépp loo xamante ne kon waa dialogue bi waxoon nañ ko fële ci jam Diamniadio fixé nañ seen ab date muy fanweeri fan ak benn ci weeru euh, mars bi et puis suppléance bi mooy président assemblée nationale moom euh, conseil constitutionnel nee na bu deuxième tour amee Amadou Mame Diop mooy wéyal lii di processus Macky Sall kon jël na ci acte daal di dissoudre gouvernement bi convoqué na corps électoral bi ñaar fukk ak ñeent ci weeru mars Sidiki Kaba ñu nommé ko premier ministre Amadou Ba moom nee kon dina rek continuer di li nga xamante ni mooy préparation élection présidentielle loi amnistie bi tamit jàll na dem ci assemblée nationale. tribune. tribune ci loolu daal ñëwaat muy loi amnistie bi jàll ci assemblée nationale lu toll kon ci juróom-ñett fukk ak juróom-benn ci ay nit ñun faat ci diggante ba daal gis nga ko Macky Sall euh, daal dina leen di rek kon dafa mel jafe-jafe ngi ci xëccoo ak waa conseil constitutionnel. Uh-huh. c'est fini mu mel ni kon processus électoral bi jeex na bu ñu sukkandikoo ci journal bi ak ñoom ñi nga xamante ni mooy. conseil constitutionnel daal mën naa jàpp ni ñoom ñoo sauvé Sénégal Macky Sall daal dinay fixé date bi et puis bi ñu daal koy di surul Sidiki Kaba bu remplacé Amadou Ba Pastef refuse kon le sale boulot di rek ànd ci vote li nga xamante ni moom mooy euh, projet de loi jëm ci amnistie. les échos. na nit ñi dem vote ji ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars jamono jooju nag gars yi nekk ci kadeem sa classe gi nekk ci weeru koor yi juróom-ñaari change gis nga ñooy jàll Amadou Mame Diop

defee ca jamono jooju kon campagne bi li mu diir nag dina yées ñaar fukki fan ak benn comme ni mu ko daan amee moom Macky Sall daal dinay libéré Amadou Ba daal di nommé premier ministre bees moom Amadou Ba yëkkati na ci kàddu dafa mel ni sursaut citoyen ak demain Sénégal li bëgg mooy euh, ñu daal di amal benn ministre de l'intérieur boo xamante day noota ngir mu mën a organiser élection bi ñi am gëj ñi ci gën a ñàkk nag mooy Karim ak waa parti démocratique sénégalais. Euh, L'As di ñëwaat ba léegi rek ci le conseil euh, constitutionnel bi maanaam réeróo bi nga xamante ne am na ci seen diggante ak le président de la république ak changement yi am ci gouvernement bi mi ngi noonu kon Sidiki Kaba moo remplacé kii di Amadou Ba ci primature. Vox juróom-ñaari sages yi ngi noonu kon ak chamboulé tout maanaam lépp daal jaxase nañ ko jëm ci ay décision ki dogal yoo xamante ni ca jamono jooju Macky Sall daal dinay décrété ñu daal di amal élection yi ñaar fan ak ñeent ci weeru mars boobu assemblée nationale ko na kon 94 députés quarante neuf kon A. Macky Sall gis nga ko en guerre contre les sept sages la daal di wax ak dogal bi nga xamante jël na ko conseil constitutionnel kon ñoom jàpp nañ ni fanweeri fan ak benn lañ war a voté Macky Sall ne fanweeri fan ak ñeent ca jamono jooju gis nga bu dee brave de fer bi continué nag. Macky Sall moom mooy am dëgg mbax moom moo am mbaax xama daal di convoqué le corps électoral en cas de second tour gis nga ko Amadou Mame Bob Diop président assemblée nationale moom mooy rek euh, wéel nekk président daal di organiser li nga xamante ni kon moom mooy élection bi koto gis nga ko rek ci grand théâtre ba nga xamante daanaka ca la nekkoon démb ak assemblée nationale ak vote loi jëm ci wàllu amnistie. le témoin lu mu xëyee. gis nga ko rek date élection présidentielle yeeg euh, di dàq Ba. présidentielle yi kon fixé nañ ko dimanche ñaar fukkoon ak ñeent ci weeru mars ba ca jamono ji sax borom euh, yenn cas bi di Mamadou Omar Ndiaye moom mi ngi sargal bu baax a baax juróom-ñaari stage yi. Sud Quotidien ci anglais la de ñëwaat gis nga ko rek mel ni kon wëree wa dem na këng la yenn bi daal di wax kon mooy conseil constitutionnel sifflé fan ak benn ci weeru mars boobu juróom-ñaari sage yi gis nga ko rek jël nañ acte décision bi nga xamante ni kon chef de l' ak yu ni mel ba tax na 19 yi finalement la ni mujj mujj retenir ancien premier ministre baa ngi noonu di Amadou Ba nekk candidat ka tamit di Sidiki Kaba engagé au service de pays. Mm, sport ak record. ci Ligue Europa ak ñaari doomu Sénégal yi nga xamante ni kon ñi ngi nii euh, muy Villarreal kon. ñoom la waa Marseille war a dajeek ba tax na Iliman Ndiaye ak Ismaïla Sarr gis nga ko torpiller les sous-marins jaunes moom mooy waa Villarreal moom gis nga ko war a fu jëm kon ci li nga xamante ni euh, mooy quart de loo xam Mohamed Daou Tyson ki nga xamante ni kon battee Mohamed Ali ñëw kon ci li nga xamante mooy histoire. stade ñaari doomu Sénégal yaa ngi noonu muy Iliman ak Iso sa mesure via mel ni mi ngi ci xëtu yéenekaay bi. ñu jeexaleeg sunu law ñoom commencé nañ sargal jigéen ñi ndax kon jub suba mooy 8 mars bi ba tax na kon c'est ah, Lion des arènes sénégalaises mi ngi nii nag bari nañ fi trop ay soxna yoo xamante ni ah. am na jaytul xam naa Malick xam na leen dafa mel ni am nañ taxawaay bu am solo ah nattu jéemee Ah, nogay Fall gisuma fi naata mbay de. Hmm, parce que nekkuma ci làmb ji. Nogay Nogay maa ko njëkk a jox micro. Ah. parce que nekkuma ci làmb ji ma ci nekkoon nga gis ma ci. waaye hmm. yàq der merci beaucoup Chérif ci kanam incha allah dinañ dellu si waat ci yëglekaay yi li ñu xëyee tey alors euh, Mortala ñu taxaw démb ci journée bi une journée boo xam ne dafa bëri ci wàllum actualité euh, vote loi amnistie bi ci assemblée nationale conseil constitutionnel mi génn date pour euh, élection présidentielle bi et puis président Macky Sall également. ak gouvernement bi ñu dissoudre xaj xaj na ñu bëri loolu lañ comprendrewul sax lan moo tax ñu dissoudre gouvernement bi Mortalla s'il te fallait des mots wala un mot pour décrire journée démb bi lan lay doon.